la fii ci Mbàkke gis ngeen ko ñi ne nañ grenade lacrymogène yi la dañ ko fi dóor benn garage camion la voilà gis ngeen ko oto yu bari ñoo fiy tàkk jamono ji ñuy waxee ak yéen voilà gis ngeen camion yi ñu ngi noon di tàkk fii ci Mbàkke ci altu Daaru Salaam bi fii nag nemmeekuñ ci benn tàkk der boo xam ne jamono jii maa ngi fi gisuñ fi sapeur oto bi. donc waa garage bi ndeysaan jamono jii ci jaaxle go metti la ñu nekk jaaxle go méttee méttee méttee métti la ñu nekk jamono jii ay oto yu cher ay camions yu jël xaalis bu bari moo fi tàkk jamono ji ñuy waxee ak yéen am na yu tàkk ba defub dóom am na yeneen yoo xam ne ñu ngi jàpp gis ngeen bii pneu yi ñoo commencé jàpp seeni borom nag ñu ngi def ay pexe ngir jiim koo lonk gis nga ko yi. pneu yaa ngi explosé air bi ci nekk jamono dégg ngeen ko pneu yaa ngi noonu di explosé oh metti na metti na metti na metti na oto yu bare bare bari jamono ji ñoo fiy tàkk voilà ndeysaan am na benn poto courant tamit jot na fee tàkk waaye Senelec gaaw biñ leen ooyee coupé nañu courant bi waaye li tëj euh, waa garage bi daal mooy seen camion yii di tàkk mënuñoo gis chauffeur kenn mënul ñëw jamono ji ngir fay la leen ko amuñu ndox muñ ko fayee mu nekk jafe-jafe yu métti yoo xam ne waa garage bi ñu ngi koy dund donc nag bi ñu gëstoo ci ay xibaar ñenn ñi nee nañ manifestant yi ñoom ñoo ko taal ñenn ñi ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa euh, force de défense de sécurité seen grenade yi moo ci dal mu tàkk waaye lu mu ci mën a doon daal oto yaa ngi ne jàppit jamono jii ñuy waxee ak yéen takk takk yu méttee méttee méttee métti gis ngeen ko gis ngeen ko gis ngeen ko metti na lool ndeysaan waa garage bi amuk jaaxle mënuñu ci dara yenn oto yi ñu mën a rawale ñu ngi koy rawale yenn yi nga xam ne comme yi yëpp dañoo paan ñoo doon doon dépendé seeni borom mënuñu ci dara lu metti la loo xam ne ndeysaan gis ngeen ko en direct ci seeni Sénévision voilà